canadien kay dama jàpp danga. foofu tu n'es pas obligé nekk citoyen canadien mën nga nekk résident permanent tamit. voilà c'est kon ñu def beneen tour de table xanaa door a ñëw ci. balaa ñuy def tour de table bi tey dañuy dugg ci thème bi parce que sànq daf cee laal moom déjà muy euh, la justice sénégalaise. Mm-hmm. ñëw nga fi xool nga ba xam ndax war nga mën liggéey ak ñoom wala li ñu li ñuy proposé ci côté liberté côté déontologie et tout ba xam ndax arrangé na la par rapport à li nga xam ne moom nga tàmm effectivement euh, man ñi ngi ko doon wax keroog maanaam ci gaawu bi mhm. euh, ay réforme Sénégal am na fii depuis quarante ans wax mhm. bari na waaye euh, dafay mel ni que disons mur boo xam ne yaa ngi koy jéem a jubbanti nga xam ne moo ngi jàng mhm. wante saa boo <laughs> mu mel ni maanaam a day gën a jàng loolu du man maa ko wax mhm. juge Téliko euh, yaakaar naa wax ñu xam la ci magistrature bi mhm. ay atat ci ginnaaw am na këyit a ku mu bindoon daal di ñaawlu ni nga xamanante ni bii juge yi li ci ëpp bàyyi waaw ñu leen ñu àtte yoon ndax exécutif bi da lay na contrôler loolu boo jëlee tout le processus d'affectation et de nomination des juges mhm. exécutif bi dañ koo dooleel ci ñaari euh, ci ñaari loi yi may wax euh, benn na bi wax naa ko sànq muy loi organique 2017 10 portant statut du magistrat beneen bi loi organique 2017 11 portant organisation e fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. kon suñu texte yi la ñu war a. texte déjà mooy tax tey jii suñuy affecté juge. ah ministre de la justice bi mooy def sa liste ak le président article 4 euh, loi 2017 10 7 2017 11 ministre de la justice bi mooy defar sa liste ban magistrat la bëgg cour suprême ban magistrat la bëgg cour d'appel ainsi de suite ainsi de suite ah su noppee ñu jébbal liste bi conseil supérieur de la magistrature généralement simple avis maanaam li conseil supérieur de la magistrature wax ndax ànd nañu ci tel magistrat ñu yóbbu ko fee ak fee mën nañ ko bañ a topp. loolu texte yi ñoo ko loolu texte yi la boo demee tey euh, article 4 bu loi organique 2017 10 ak article 8 bu loi organique 2017 11 clairement loolu la wax léegi buñ ko jébbalee con c'est rare nga gis avis conforme peut-être article 6. Euh, nga koy gis ci loi organique deux mille comme deux mille deux mille sept dix bu dee une affectation mm, pour nécessité d'un comme de euh, du service. mais c'est rare en général simple avis la mooy ne mbootaayu seize membres conseil supérieur de la magistrature juge yi ñoom ñëpp mën nañoo bañ a ànd ci nomination ñu bañ koo faale président quand même accrédité loolu texte yi la léegi beneen affaire bi tamit mooy ba léegi nag texte yi ñoo permettre juge yooyu nga xamante ni bii ñoo war a daje pour joxe seen xalaat euh, ci liste affectation yi juge yooyu presque soixante quinze pour cent bi exécutif bi moo leen fa teg te man na leen faa jëlee tamit texte yee ko wax tamit texte yee ko wax tamit important ñaari loi organique yooyu ma la wax ñoo ko wax beneen bi tamit suñu dajee daanaka sax ñett te ba ñeent la ci magistrat yi tànnal seen bopp mais ñeneen ñëpp soixante quinze pour cent yi exécutif bi ministre de la justice ak président ñoo leen tànn maanaam ñoo leen tekk ci poste yooyu te mën nañu eh, waaw te texte yee ko wax exactement beneen affaire bi tamit maanaam texte yi ñoo ne lan mhm. ñoo ne juge yooyu sax ba tey bu ñuy siéger président de la république moo koy jiite. waaw mooy le président du conseil supérieur de la magistrature ministre de la justice et après lui il y a le ministre. ministre de la justice sa vice président c'est même article. vice président organique 2017 na même le président mu autoriser ministre de la justice bi nga xam ne moo defar sa liste mhm. mu jiite conseil boobu nga xam ne en euh, suñu demee ba tolloo ay voix magistrat yi ne d'accord nañ ci lii kii ne d'accorduma ci. Euh, ñu maanaam ñu tolloo ministre de la justice bi. te kiy jiite conseiller supérieur. deux voix lay am moom. mooy xajale texte yi ñoo ko wax. Mm-hmm. léegi léeg sax am na lu ñuy tuddee consultation à domicile. Ah, texte yi ko wax. ah yi ba tey ñoo ko wax. article six en cas en cas urgence la ñu wax. urgence mais. exceptionnel mais xam nañ ne. loolu waroon a nekk urgence am na ay magistrat yu ci bind yu bari yoo xam ne nee nañ daal doy na waar daal li nga xam ne amaana benn yoon ci juróomi at la waroon a am daanaka bari na nag lu muy am texte yi ba tey ñoo ko article 6 loi organique 2017 11 léegi nga xam ne yow exécutif bi ñi mu fa teg majoritairement day dem kenn par kenn laaj la yow nag sa xalaat mais lan mooy sax lan moo ñuy wan sax ne boo demee ci benn juge mhm. mu ne d'accord ma ci kii ak kii est-ce que keneen sax yow di nga wax loolu mu wax mhm. <laughs> donc léegi nag après nag euh, am na yeneen problème yooyu yu texte yi nekk loolu moo tax man ma ne boo gisee nag loi organique yooyu amul benn loi organique boo xam ne dina entrer en vigueur te conseil constitutionnel waxul ne c'est conforme à la constitution c'est obligatoire kon loi organique yooyu conseiller constitutionnel xool na ko ba nekk disons dox na loolu moo tax ñun euh, li ñuy wax mooy lan mooy en réalité euh, ni mu demee noonu dafay firndeel problème fondamental ah, bi ñu am mooy li ñu war nag mooy une refondation de la justice ndax bànqaas wala boog disons keno ak cëslaay li nga xam ne moo lal suñuy loi ak suñu justice mooy permettre loolu war di am ba exécutif bi mën a téye le judiciaire mm-hmm. système de droit romano-germanique boobu nga xam ne ay romain bi ñu ko xalaateeg léegi ëpp na ñaari junniy at loolu lañu tubaab tubaab bi indil ñu continuer ñun après boobu nag et puis système yooyu xam nga day am système sax système de droit islamique am nu ñuy xalaate mm. am système romano-germanique ak nu ñuy xalaate am système de common law ak ren maanaam ak nu ñuy xalaate xalaat yooyu nag nag maanaam euh, boo seetee day mel ni jiw tey jii nag boo jiwee maanaam pepp dugub mais nag dugub la lay génneel ah, ah? Mm-hmm. yaakaaruma ne dina la génneel mboq mboq euh, voilà waaw léegi nag ñun nag ni ñu jiwee suñu système de justice bi fondation yi moo am jafe-jafe mooy ne dañoo jël système de droit romano germanique mu am ay lacunes ñu accepté nag continuer am na ni yooyu nag ci noonu. système de droit romano-germanique bokk na ci jafe-jafeem mooy ne farataal lu ñu lool maanaam attekat bi dañ koo considéré comme bon comme ne moom dafay nekk rek ngir wax loi bi jeex na. Mm. mais joxuñ ko benn cër. alors que euh, et puis tamit euh, dañ koo xaw ragal maanaam le pouvoir politique day day maanaam il y il y une tendance. boo xam ne dañuy bëgg a téye le judiciaire. Hmm. waaw loolu boo gisee France temps yi xaw nañ koo soppi mais dañ koo jéggaane feneen te ci système de commande la wala léegi nag loolu noonu euh, day tax. mooy indi comme suñu comme suñu loi organique yi alors que tey jii par exemple juge yi par exemple euh, bon euh, beneen difficulté système de droit romano germanique mooy que day bot di waate mooy ne bu ñuy xalaat loi ak règlement euh, maanaam euh, dañ ciy seppi ñoo xamante ni bii buñ ci bokkoon loi yi mën na gën a efficace mën na gën a baax te mën na méngoo ak réew mi ñooñu nag mën na euh, nag mooy ñan système de droit romano-germanique dafa ne bu ñuy defar loi pouvoir politique bi donc nag moo ci am baat mm-hmm. assemblée nationale ak le gouvernement point juge yi nga xamante ni bi yow yow soo attee eh ba maanaam yow soo fi indee loi juge bi mooy tranché bu jafe-jafe amee ci moomal la ñuy dem di gis mais kooku kan moo ko gën a xam loi bi ndax baax na am kan moo ko koo gën a xam ndax amul ay solution ndax moom su taxawee ñaari nit di xëccoo te dina gis benn ndax loi bi li mu bëggoo na faj ndax mi ngi koy faj. Mhm. wala yan manquement ah sa sax disons. waaw léegi nag. Euh, loolu jafe-jafe la moo tax ma ne la système de droit romano-germanique boo ko toppee moom donc da dugal ci guuta goo xamante ni bii da ngay ngay boddi juge yi mhm. alors que normalement waxuma ne juge yi dañuy dem assemblée mais war nañu leen a mën a laaj même ci secret euh, même ci sirru conférence euh, maanaam des juges ñu bañ a nekk rek suñu dajee euh, ci rentrée des cours lay yem. Mm. ak ay nomination déedéet juges yi ay borom xam-xam lañ. Mm. war xam nañu loi yi ndax efficace naam efficace mm. yan solution moom la ñoo mën a def ba suñuy def une réforme de la justice wala bon pas seulement sax justice réforme bu ñu mën doon en matière environnementale en matière fiscale ñu mën a indi seen xalaat tamit mm-hmm. Mm-hmm. jox ko pouvoir politique bi mooy am nag la dernier mot waaw mooy def nag euh, li mu bëgg a def mais au moins mine d'information la boo xamante ni bi war nañ ko mën a xëcc nag jëriñoo ko ah beneen affaire bi système de droit romano germanique day di tamit askan wi te ci processus législatif bi mm-hmm. dañuy fal ay député après nag seetaan du ñu sax nangu alors que boo demee ci système man dëkkamalaw yi bu projet bu ñu bu ñu déposé projet de loi bi day am benn période ay semaine yoo xam ne day nekk en consultation publique dañu naan askan wi kat ñi ngi waaj a waxtaan da ci loi sàngam képp koo xamante ni bii mbootaay ngeen di doon nag dañ koy organiser bien voilà képp koo xamante ni bii mbootaay nga am nga ci xalaat boo ci indi man nga ñu ci dimbali ndax ñoom tamit mënuñoo tamit gis lépp ay nit lañ tamit donc askan wi mën naa dimbali député yi ngir ñu gën a am ay loi yoo xam ne euh, maanaam que disons euh, moo gën hmm. loolu système a dëkkamalaw nag da koy indi waxuma ñu changer système mais dama ne war nañoo mën a jëli ci ay baax-baax yoo xamante ne bii am na feneen ñu ñambaas ko ci hmm. su ko defee ñu gën a dëgëral nag fondation suñu justice ak yeneen euh, yeneen ci indépendance maanaam kii maanaam du parquet au niveau de l'accessibilité de la justice fexe ba justice bi nit ki nga man koo saisir te doo ci am ay jafe-jafe hmm. nga nan la ñuy mën a fexe ba boo demee justice ba ñu jox la landam ndam jugement bi nga am ko na ci période sax bu gaaw ndax mën ngaa toog ay weer doo ko jot loolu wàllum administration la daal voilà donc loolu lépp et puis tamit tey boo demee ci palais de justice yi ni ñu def euh, ni ñu def seen archives yi par exemple maanaam da ngay gis ne fànn woo jël ci réforme de la justice bi li fekk ñoo ngi continuer comme li fi amoon ci ñeent fukki at yuy weesu. bëgg yem ci li nga xamante ne bi moom lañu fi jëmbat comme système de droit duñ ko renforcer ak leneen jàpp naa ne ni yeneen réforme yu ko jiitu amee jafe-jafe yii it noonu lay amee jafe-jafe. moo tax it faw tamit ñu nangu ubbiku waxuma ñu remplacer système yi mais ñu xool système bee tamit ak système islamique ak yeneen ak endogène bi ñu maanaam ñu génn ci exclusivité bi nga xamante ni bii dañ ko euh, voilà d'accord